ko bëgg gën a yaatal ci Sénégal naam Sénégal képp kuy artisan mën nañ ne yëg nga ko waaye dañ ko bëgg a gën a ci kaw loolu nag ñu war a dem congrès le 28 janvier ñaar fukki fan ak juróom-ñett weeru janvier maanaam weer wi ñu nekk congrès boobu bureau bi nga xamante ni taxawal nañ ko fa ca congrès boobu lañ koy dëggal bu neexee yàlla ñu ngi leen ci invité yi tamit avant balaa muy ñëw ñu ngi ñu leen koy yëgal ne congrès boobu yéen presse bi ñu ngi ñaan tamit ngeen teew fa ngeen jëmmal ko ndax li ñu tax a jóg mooy suñu secteur bi di secteur de l'artisanat dafa nekk lu am solo ci économie bi ñi koy woowee l'économie informelle ak nu ñu ko mën a woowee rek nekk na loo xamante ni lu am solo la ci secteur ci Sénégal ba tax na dañoo jàpp ne mënatul ñàkk ñu jóg taxaw li ñuy wax euh, organisation professionnelle muy OPA ñu koy wax association am na fi ñu ci bëri ci ñu jiite ko ñu ciy liggéey liggéey bu am solo di ci ma ne ay combat mais dafa jot ñu taxawal syndicat léegi nag syndicat boobu dañoo taamu CNTS affilié ci ndax CNTS moom képp ku ne ci Sénégal xam nga ne syndicat bi fi gën a yàgg la mais bu fi ëpp doole aussi la preuve jongante yëpp yi nga xam ne dem na fa central syndicat yi da di rawee lu bëree bëree bari moo tax ñun ñu taamu ko ñëw wéeru ci moom ànd ak moom liggéey li ñuy wax affilié ci tubaab li tax ñu def loolu mooy dañoo seetlu ay manquement yu bëree bëree bari ci suñu secteur bi dañ ci seetlu ay manquement yu bëree bëree bëri mais am na tamit lu bëree bëri loo xam ne tamit gouvernement baa ngi koy def duñ ci gëmm suñu bët ndax ñun ñoo waxoon ne dañoo suñu ministère ministère de l'artisanat wékku ci yeneen i ministère ñu koy jàmbat di ko jooy bañ créer ñu ministère plein muy ministre de l'artisanat et de l'insertion mais loolu bañ ko taxawalee tamit xañ na waxuñu ne deful ay jéego mais ba tey ñun gis nañ ne des na des na te ñoom it wax dëgg yàlla xañ na ñu ngay def lu ñu man mais ñun li ñu bëgg mooy taxaw paa ministère kese mais état bi ci moom li nga xam ne moom la artisan yi war a jot ak li ñu war a am am na lu ci jot a am li amagul dafa bëri ñu taxaw pour loolu mën a am léegi nag pour loolu mën a am it dafay laaj point yi nga xamante ni moom la ñu bëgg état bi taxaw ci dañuy commencé di ko jëmmal ginnaaw suñu congrès te point yooyu bi ci jiitu mooy dañoo seetlu ne euh, ñi nga xam ne dañu yëngu ci wàllu mécanique li ci ëpp fu ñu toog dañ leen fa déjjati te duñ leen yóbbuwaat feneen ca fan yee passé le ministre de l'artisanat ànd ak yenn ci ay mécaniciens am ay zone yu nekk jam ñaajo ñu ne loolu pour mécaniciens yi la ñu ngi koy defar li ci des bariwul pour ñu séddale ko loolu lu baax la mais ñun li ñuy ñaan mooy dañuy bëgg fépp foo xam ne mécanicien nekk na fi ci Sénégal muy département yépp mu am ay zone dédiée wàllum menuiserie bois wàllum bant yi ñu fexe yombalal leen ñu siy jot ñi nga xam ne ñooy bijoutier di yëngu ci wàllum or or bi nekk Sabodala ak yeneen ak yeneen ñu yombal leen ñu ciy jot téyeer yi jot nañoo mos ndax état génne na 30 milliards 10 milliards yi jàll na muy première phase dafa war a am deuxième phase troisième phase parce que test la wax après ñu mën a continuer parce que loolu c'était pour habiller école primaire yi mais bañ ko ñëwee ba léegi ñun interpellé ci ñaari yoon ministre ne ko mais lan moo tax tëni ñaw livré wu leen ko élèves yi parce que ñun ñu ngi gis xale yi di jàng soluñu ko ñu ne non dañuy xaar dañuy xaar mais ñun ñu livré ko pour ñu attaqué waat beneen ñëw Tabaski gi ñëw ak yeneen li ñu daloon daaw nga xam ne tenue dañoo dem ba ouverture ñu koy door a dafa yéex a pare tardé loolu la ñuy bañ bu ñu sañoon période bi comme xaw nañ am jot ñu jox ñu yeneen beneen phase bi ñu song ko liggéey ko kon nag ñu ngi demande le ministre de l'artisanat et le ministre de l'éducation nationale ñu gaaw ci loolu pour mën a livrer tenue yooyu li ci des ñu joxe ko beneen commande bi ñu continuer ko mën ko liggéey ginnaaw loolu it li ñu fi dajale muy syndicat yi dama ciy dellu si balaa may tëj syndicat national de l'artisanat le 28 janvier inshallah lañu dem ci congrès fi ci CNTS ñu koy yëgal artisan yi nekk Sénégal yépp ñi yëg ak ñi yëgul té ñuy wax né bépp kuy sa artisan ci Sénégal ubil nañ la suñu buntu pour nga ñëw bokk fi unanimité nak kenn mënu ko am mais dal képp kuy artisan ci Sénégal ñun ubil nañ la suñu buntu pour liggéey yow ci SYNAS wasalaam rafetlu aussi jotaay bi di rafetlu bisu tay bi ndax bis la bu am solo ci secteur de l'artisanat li tax mu am solo mooy lu ñu doon xaar la parce que ñun aussi ay artisans lañ te yàgg nañu taxawal le secteur de l' artisanat damay wax ni amul lu ñu deful ci secteur bi li may wax nii nag damay jël témoin kii toog fii nga xam tey mooy bàjjan Adja Diosi nga xamante ni su ne artisanat rek moom rek jëmmal na secteur de l' su ñu wax organisation professionnelle amul secteur ci secteur de l'artisanat amul métier bu amul organisation professionnelle du menuiserie du mécanique du tailleur bépp métier rek am na OPEA mais ci biir loolu am nañ ay kuréel yu ñu lëkkale nga xam ne yàgg nañ ci di xeex yàgg nañ ci di revendiquer li nga xamante ni moom mooy jëmale kanam secteur bi li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëggu artisan yi mais dañoo gis ne dafa am fu mu yem dañu gis ne sunu OPEA yi dañu gis ne suñu euh, fédération yi ñu am suñu confédération yi ñu am suñu unité yi ñu am suñu OPEA yi mënul def liggéey bi parce que aussi dañ ko constaté yalla def na am nañ ay OPA am nañ kuréel gu ñu doon wax le cadre des organisations professionnelles don ci xex mais dafa am fumu yam fumu yam moy revendication yi ñu don porter dañu jël exemple rek lu melni ni fonds force Covid 19 nga xamanteni secteur yépp ci économie mu laal leen état bi dafa dégager won fonds pour di leen dimbali ngir lu ñu dëgërloo même secteur de l'artisan kese. ba tey jii nii nga xamante ni dem nañ ba def bilan ba rapport cour des comptes génn wax na lekk nañ xaalis bi sa dëgg laata dana moom seen xaar jotaguñ ko ba suñu jan yàlla tey te amul kenn ko mën a topp wax la xaalis bi fii la tagee amul yàgg nañ ci xeex point de presse bu dul point de presse bi jinne yenn journaliste yi mën ngeen ñu seede def nañ ko si mais lu waral mënuñu topp dossier ba fu mu àgg mooy que c' amuñu syndicat amuñu ñu porte revendication bi topp dossier ba mu àgg fu mu war àgg ba ba léegi nag ñu gis ne la xew bitim réew xew ci yeneen réew yi nga xamante ni moom mooy réew yu développé yi wala réew yi nga xamante ni artisanat jëm na fa kanam biir Afrique mooy dañu am ay syndicats yu am doole dañu am ay syndicats yoo xam dañuy doxal dañuy taxawal secteur bi parce que su ñuy wax liggéeykat artisan artisan moom kenn jiituwu ko si liggéeykat su ñu wax ne syndicat li ko tax a jóg moom mooy moom mooy euh, euh, euh, ouvrier yi ouvrier moom yaakaar naa si artisanat la tàmbalee si artisan la tàmbalee fa la yem ñooy maçon yi ñooy mécanicien yi ñooy ouvrier yi ñooy tailleur yi ñooy lépp li nga xam te mooy liggéeyu loxo donc ñun ñooy ouvrier yi yàlla na nag ñu kaas suñuy droit ci réew mi la ñu dëkk bépp boobu nag ba ñu defee constat boobu ñun artisan yépp ñu nekk nag di dox di wax di lijjanti ndax bëgguñu def parce que lii lu c'est une première mu ngi door a am fii ci Sénégal syndicat ba nga xamante ni dafay taxawal artisan yi mu ngi door a am lu ne nag am na fi mais nag bañ ne dañ donte dañ koy def duñ ko defee lu ñuy précipité dañuy ànd ak ñu jar àndal dañuy ànd ak ñaa xamante ni suñ ànde ak ñoom dañuy def démarche bu responsable si la yàlla defee ñu waxtaan ak seen tees bu ñu ubbil ñu seen ay bunt ba ñu mën ànd ak ñoom ci liggéey bi ci loolu nag talal nañ ci loxo artisan yépp te xam nañ ni projet la ba xam ne artisan yépp ànd nañ ci dañuy waajal congrès congrès bi le 28 inshallah si lañ koy taxawal comme ça ñu mën a démarrer activité yi mais li am solo secteur général morso wax na ko léegi mooy que ne li ñuy xaar bari na bari na parce que artisan yi fu mu toll nii ñoo yor économie réew mi waaye dafa mel ni dañ ñu bëgg a nelawal mel ni ñun daal nañu nañu toog rek bañ a comprendre dara su ma la waxee foo forte Covid 19 bii ñu def bilan rek ba tey jii nii artisan yi daw naan desal nañ te 150 mille rek lañ leen waroon a waroon a jox yaakaar naa ne am na yeneen travailleurs ñu nekk si secteur hôtellerie 500 mille lañ leen doon jox dañ leen a jox ba mu mat sëkk artisan ba tey jii nii seen 150 mille kenn xamul fa mu jaar te mënuñu ko lijjanti mënuñu xamuñu fan la fan fan la mbir mi tagga tembe loolu rek suñ ci dëggee tànk xam nañ ni syndicat yell na ci ci secteur de l' artisanat commande publique bee ngi fii déguerpissement mécanicien yi du ñu wax rek mécanicien yi mais village bu fi taxaw ñu dem ba gis ne site bi site bu baax la site la ba nga xamante ni war nañ fi mën a def projet immobilier om d'affaires yi ñëw nangu ko si artisan yi loolu mooy li am om d'affaires ñëw nangu ko si kaw artisan yi te duñu am fu ñu ko jooyee duñu am kenn ku ñu ci jàppale village artisanat yëpp nga doon gis fu mu doon nekkoon ci zone yu baax yëpp nangu nañ ko te amuñu benn recasement ba nga xamante ni rek dañ ne dañ koy defal artisan ñu topp ko ba mu sës finalement ana Colobane nañu waxante dëgg suuf pont Colobane ku xam fi Ndakaaru te xamoo suuf pont Colobane te nga te nga nekkoon te nga nekk liggéeykat nga xam da nga fa daan dëgg loo loo dugg loo soxla ci fer loo soxla si oto loo soxla si pièce détachée loo soxla ci li nga bëgg liggéeylu danga ko fa fekk ñu defaral la ko ay da nga daan soxla ay pièces sax nga dem euh, suuf pont Colobane ñu confectionné la ko defaral la ko defaral la ana tas nañ ko léegi te recasé wuñ leen feneen yu mel noonu nag dañu ne loolu dafa doy kon nag artisan yi yàlla na tey ñu dajaloo taxawal syndicat bii ñu taxawal ñuy xeex suñu àq ak suñu yelleef. asalaamaaleykum man maa ngi leen nuyu ak fi yéen waa presse bi ah, di leen gërëm di leen sant ndax yéen moom il faut que ko fu ñu toog rek ñu war a amal si yéen yéen sant ndax yéen ñu nekk si presse bi da ngeen bokk si secteur de l' artisanat les caméramans et les euh, et les photographes yéen da ngeen bokk si secteur bi yéen da ngeen war a ñëw affilé wu fii tey si SYNAS. ko ko bon ñu ngi leen du nuyu di leen ziar di leen si woo di leen si tàllal loxo. waa di wax nag euh, bi secrétaire général waxee ba pare euh, secrétaire administratif wax euh, revendication wax man fi may wax ci wàllu jigéen ñi laay wax surtout jigéen ñi xam ne da nekk ci wàllu couture jigéen ñi nekk ci wàllu couture ñu leen di woo ci li nga xam ne moom mooy congrès bi nga xam ne dañ ciy jëm que vingt 28 nga xam ne waa congrès boo xam ne la ah ñu de que CNTS que dañ am ci moom yaakaar te dañu tuddee nag secteur de l' informel wante ñun suñu biir ay ñu bari que nekkatuñ si si formel ñu bari formalisé wu nañu te bon ñu ngi leen si woo bu di ñëw nag ci li nga xam ne les femmes transformatrices a femme ko transformatrice ya xam lu dul ko formation am nañ ko ci secteur bi xam ne secteur de l' artisanat nga ko si ay ko formation professionnelle ay 3 FPT

lu nu njëkk defal te defal nañu ko formation boo xam ne naka na ne ay génnee si secteur de l' informel xaj ñëw si secteur ko secteur ko formel war nañu ne dina nu topp ka jàppale nu que bana am ko sunu fra boo xam ne te CNTS nu koy ànd ak ñun ba benn fra lay doon ba jigéen bu si nekk si secteur bi rek ku ñoo koy bokkandoo ñu am ko bon yéen jigéen ñi war ngeen a mun a ñëw yéen ñëpp surtout les femmes transformatrices te tey fu nu woote rek fa ña nga fa boo demee si foire yi internationale yi ak ñoo fa nekk te ak nationale yi ak ñoo fa nekk ku ñu ngi nekk si euh, que mois du consommer ko local que si laa nekk boobu la et depuis le cinq ak ñu ngi si te démb ko clôturer te jigéenu Sénégal yëpp a fa que bon ñun loolu dañ koy soxla di ñëw nag si coordonnées ya xam ne tey jii ñun que ñu leen taal parce que ñëpp xam na ne ba coordonné que problème ba nekk ñëpp xam ne si peau et cuir matériel bu gën a tuuti yu ñuy defaree nga xam ne mooy dàll ba si pont ak kenn ko defaree fii Sénégal dañ koy exporté mu ñëw ñuy liggéey liggéey bu am solo mais liggéey bu nu liggéey bu nekk te dañuy am ko problème de matière que première que loolu moo tax SYNAS bii tey que syndicat bi ñu dugg ñu war see mën a dugg nu ñëw si ñi nga xam mooy or bi ñëpp xam na ne bii tey euh, jokkoo ak président de la république fu amee waxoon nañu ne ñi nga xam ne ak ñoom ñooy ay bijoutiers yi dinañ jéem a fexe boo or sabador te TVA bi ak ñu wàcce ko ñu jox leen mais secteur kenn mënu ko defar maa ni du ko jox administrateur te doo ci dugal ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi te bon loolu ñi ngi li tax ñu taxawal tey ji ko sénage pour xeexal ñooñu tey ñu war si ko mun a ñëw ñu ànd ak ñoom ci li nga xam ne mooy or be ñu mun si di ci jàpp di si liggéey te di ko jël di ko delloowaat fu artisan yi ak mun a gis seen bopp ko di wax daal ku ñu woo ko ñëpp man Adja Diose di bàjjanu artisan yi ñu ngi woo képp koo xam ne artisan nga ñëw fii tey si silence ñu ànd ak yéen si le 28 euh, janvier te CNTS ko boot nu ñu ànd ak ñoom revendiquer li nga xam ne secteur bi li siy metti bari na wante nag secteur bu ñëwee muy secteur de l'artisanat dañuy ëpp wa fourne bi dinañ ko ëpp si côté bu nekk moo tax nu taxawal syndicat bi bon ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ñëpp daal que vraiment ñu ngi leen di woo le 28 di si woo artisan bu nekk ba Koulikoro ndax fii ñu nekk Sinaas que presque région yi bari représenté wu nañ fi mais ñu ngeen di pour ñuy woowaat ñëpp rek. di woo ñëpp incha allah yal nañu ko yàlla boole fekk ci incha allah te di woo caméraman yeeg yéen nag yéen si secteur bi ngeen bokk. man la euh, di wax rek comme ni ñu ko waxee euh, syndicat bi soo gisee ñu taxawal ko c'est pour. taxaw artisan yi parce que ku ne xam na ni secteur la boo xam ni secteur bu am solo la ci Sénégal mais li muy am am am solo dafa amul lu ko jëmmal taxawal ko pour que solo boobu mën a feeñ pour solo boobu mën a feeñ nag moo tax artisan yi ñun ñëpp parce que dañ ne xëy na suñu yamoon ci rek secteur bu ne am na am na am na am na ñu ko fa taxawal mais suñu nee secteur de l'artisanat lañ bëgg a taxawal ba taxawal finance c'est pour que gën a dooleel artisanat ci sénégal ku ne xam na ni bépp secteur boo dem ci sénégal ci wàllu artisanat kenn mënu leen ci ci afrique de l' ouest mais loolu nag foog ñu valoriser ko foog ñu valoriser ko pour ñu mën ko valoriser ci yu mel nii lañ mën a sukkandiku taxawal syndicat taxaw fa ñu war a taxaw di wax li ñu wax fa ñu ko war a waxee pour que loolu mën a taxaw bu ëllëgee ñu ngi jërëm ñëpp di sant ñëpp L'artisanat sénégalais traverse des zones de turbulence qui, sans solution urgente, risquent de sonner le glas de ce secteur, du reste très névralgique. Il n'est nullement question pour nous de fermer les yeux sur les avancées majeures qu'a connu notre secteur devenu un ministère de plein exercice avec la nomination d'un ministre exclusivement dédié à l'artisanat. Mais on doit à la vérité de dire que les artisans souffrent. Les difficultés ont pour nom, entre autres, accès à la commande publique, déficit de formation des artisans, manque de matière, même si la créativité et le savoir-faire sont là. Ajoutez-y la question de la propriété intellectuelle et les difficultés à la protection des œuvres. La question de prise en charge et de protection sociale des artisans ne saurait être nullement occultée. De ce point de vue, les artisans sont laissés à eux-mêmes. En cas de maladie, ils sont obligés de se débrouiller seuls avec leur famille. Quand l'heure de la retraite aura sonné, tout rêve de pension devient chimérique. C'est ainsi que les artisans ont décidé de se lever comme un seul homme pour prendre à bras le corps leurs problèmes avec la création du syndicat national des artisans du Sénégal, sous le sigle SINAS. Il y va aussi de l'avenir de leur secteur. Le gouvernement a eu la bonne idée de confectionner des uniformes scolaires pour l'ensemble des élèves du pays. Les artisans sénégalais ont été choisis pour la mise en œuvre de ce programme. La première phase exécutée, nous invitons les autorités à dégager les fonds pour la deuxième phase avant l'arrivée des différentes fêtes religieuses que sont la Corité et la Tabaski qui risquent de prendre l'essentiel du temps des tailleurs. Il en est de même pour les zones de recasement dédiées aux mécaniciens. Dans cette quête de prendre en charge les intérêts matériels et moraux des artisans, choix ne pouvait être plus judicieux que celui porté sur la CNTS, centrale sans cesse plébiscitée à l'occasion de chaque élection de représentativité syndicale. Mesdames et messieurs, le monde d'aujourd'hui est à l'ère des grands ensembles. C'est pourquoi nous invitons tous les assistants du Sénégal, sans exception, à rejoindre le SINAS pour une lutte commune et plus efficace. Tout en étant à votre entière disposition, nous vous remercions de votre aimable attention.